démb waaw. dama ko laaj ne ko làmb démb. dama gis seen photo yi. bër bu mag bi day ràngoo ay sengoram takk ay sengoram. bër bu mag bi day ràngoo ay sengoram takk ay sengoram. mais ñeneen ñi ko dal ñëpp dañuy takk ay sengoram lu tax loolu. waaw loolu li ko xamal la koy indi. Euh, loolu la ñoo solidarité. par exemple léegi Eumeu Sène am na combat. boo ñaar day ñëw taxaw Sokh ñëw taxaw. ak ñi mu àndal. ak ñoom Ama Baldé ñëpp ñoo taxaw waaye kuy ñëw da takk lu ma ñetti seconde wala ñetti seconde yu ñuy tuubay gros day wane ni tey suñu xarit mooy bëri tey fu ñu dee fa loo loolu mooy loolu mooy exemplaire bi tey fi nekk nii xam nga loolu moo doon am ñun Pikine li ñu cosaanoo mooy tous lañu cosaanoo loolu la xamoon mais par exemple ñun ku daan ñëw da ngay indi sa seconde takk loolu moo doon kii te xam nga bu ñuy wax tous. ci làmb ñaar ñoo ko doon concurrence ci diggu senegal moo doon Fass ak Pikine ñoo doon wujje kan moo ci dàq tuus Fass ak Pikine loolu moo doon ñu ñëw xam léegi làmb. waaw dañoo lu ma gisoon dafa gisoon loo xamante ne mbëri bu ñu ñëwoon ci làmb. léegi mbëri bu ñu yegsee rek. mbëru mag bu yegsee rek. bu ñu ubbee bu wàccee rek dañuy def ñaari nag mu tuus direct. mooy tuus bi mooy loolu est-ce que ci làmb ji ba mu yàgg soo ko tuus. non xam nga làmb li ci sens dafa bari. moo xam ndax arrangé na mbër yi wala arrangé wul mbër yi ndax làmb la ci soppeeku dafa bari trop booy ñaar làmb tamit li soppi culture làmb daa bari tey fi mu nekk nii li ma njëkk a li ma njëkk a bañ a d'accord mbër mu takk mbër mu préparé combat plus de six mois sept mois di sangooy saafara ba xeeñ ñu tëll ci làmb ji ànd ak sa mbooloo ñu dar la ak stress bi ñëpp yàkkamte am victoire yaa ngi dégg ay ay ay ay a yi yor ay micro ñëw di la ko di la ko tiib di la laaj ngay ree mbër du ree mbër dem di bëri ji yaakaar victoire nga ànd war daje gaynde mu yow ngay gaynde nga war a nga war a soulager nit ñi te victoire mooy nga soulager nit ñi ree xaju fa stress moo fay xaj ak aal bu mitti moo fay xaj bala ngaa ree làmb jaj dafa war a jeex waa da nga war a am raas bu ngoog loolu loolu la quoi loolu la ñu xamoon ñun moo doon Mbaye Guèye moo doon Papa Diop moo doon Papa Kane moo doon Souleymane Diaw Madiaw Ndiaye Ousmane Ngom ñaa ngi dégg sàmba jaw ñaa ngi dégg moo doon Boy Bambara moo doon Robert Diouf moo doon Double Less loo li amoon xeetu mbër yi amoon pour gisatu ko dafay jafe. Mansour looy wax ci gàllaaj yu bari yi nga teg ñaari euh, quatre quatre yoo xam ne yëpp dañuy wàcc ay ay ay gàllaaj ba géew bi fees yow loo ci wax par rapport ak yéen seen jamono. ki ci am ki ci am solo daal xam nga mooy kan. Hmm. ku dégg ndigal te am ci solo premier primordial ga laaj mooy wuti doole wuti doole wuti doole mooy def musculation bu taxaw def physique bu taxaw mhm. ba nga xam ne foo taxaw ñu ne gongo physique bu taxaw ak musculation bu taxaw yaa ngi dégg def contact bu bëri ba nga xam ne wóor nañ tey yow bu ñuy def nga ñaari quarante cinq minutes doo sa victoire sa victoire complète bu ñu lay daan surprise lañ lay daanee mais kenn du la daan ci maa maa man du fa am ne lii laa d'accord ci mbër ñaareel bi nga am fittu làmb bu deuxième gàllaaj ñetteelu gàllaaj gi mooy amal staff bu baax staff nag jaru moom la staff bu doonee juróom nit sax moo gën a baax nga xam ne weretu dafa am ngut mbàpp ci suuf di yëndoo ko wax ci lii du fa am juróom nit yu métti d'accord yeew seen wax ci kaw kàddu tënk xam-xam bu mu wér ñu yeew ko ne nii la làmb ji war a demee jeex na ay serveur nag yu ko xam la ñu wax yaa ngi dégg loolu ngay am ba pare doog wuti gàllaaj gàllaaj ku la ne amul dalay nax am na waaye boo jàppee mbir bi peut-être amoo doole pour daan ko du sotti non mais ñaari camionnette yoo xam ne benn bu ci nekk day gaare ñu koy wàcce nit ñi di par dix personnes fu ñu jëlee gàllaaj loolu laa bëgg nga leeral ma rek. ànd camion moom boo jëlee ñooy sëñ boo ko jëlee. ah bi dugg rek loolu moo am de. waaw man gis naa man ku tepp man gis naa ku ñu tepp bi man gis naa ku ñu tepp bi gàllaa gi génn ko. yaa ngi dégg tepp bi gàllaa gi génn ko muy calendrier. waaw waaw carton calendrier. yaa ngi dégg saafara bu zone saafara bu zone fan la amee. saafara bu wert fan la amee. bidon 4 litres wala 10 litres fan la amee. fan la amee man boog làmb amut làmb amatul woon léegi la xaalis dafa am tey ku ci doon aalim nangoo tarbiyu làmb tarbiyu ko ca ña ko war tarbiyu ñu ko xam parce que nit ki bu fekk da nga xam ne kii xam na nga tarbiyu ko du fëkk xel fii fëkk xel fee te di ko utiliser ba mu mokk bu la yàlla dimbali mën ngaa génn mën ngaa lekk ci xaalis bi xew léegi yaa ngi dégg bu ñu amee discipline tamit yàlla mën na laa dimbali nga am te mais nag na ngay déglu ndigal na ngay déglu ndigal ndigal yi xew nii léegi taxaw fële am na deux cent cinquante personnes yu quinze ba di ko am amul ànd mais père mais bu njëkk bu woon yenn matériel waaw ah. da ngeen daan indi saa si yoo xam ne nii dara dara jëm waaw ah. te léegi da gis xale boo xam ne day préparé combat lu ma six mois bu ñëwee ci làmb ja du indi dara entraîné wul mais bu njëkk yéen na moo nekkoon seen secret bu ngeen daa indi yenn saa yu doy waar yooyu. ba ba tey bokkul ba tey bokkul xam nga lu ñu wutale. waaw da ngay ne combat bi mu ngi ñëw. waaw yaa ngi dégg <laughs> non non yow problème am na foofu de. non problème am na foofu de. problème am na foofu de. waaw loolu la. non xam na loolu xam na may ko wax la. waaw waaw xam nga yaram bu fam gore. waaw. xam nga yaram bu fam gore. waaw yaram bu fam gore mooy mbër. mbër mbër bu amee doon day yomb xam. nu ngi koy xamee nu ngi koy xamee mooy mbër bu amee doole ame amee leex hmm. nga am yére yu noox yi day génn bët ya noox ca biir pamb yi yaa ngi dégg mën nga am sax biir ndax biir biir nit dina ko am am doole ndax waaw mais doole ci kanam lay feeñ yaram bi kanam nga day seeñ ji graisse fa am Hmm. los bi dem leen nga xool tey kanam non du ma tudd sa tur benn mbër lu sama mbër yéen daay tudd ndax bu ma tuddee beneen mbër rek ñu moom hmm. waaw mais li ma la bëgg xamal mooy mbër du mbër volume mu kanam dund nga lu neex looy tekki da ngaa dund lu neex noos noos nga mais bu fekkee ne si da ngaa entraîné entraînement bu métti contact contact bu méttee méttee métti sa kanam gi day doon yàq lay doon coono bi day feeñ loolu moom laa nangu te gis naa ay ñoo xam ne si tey bu clair. non bu clair mbër mu ko am amoo doole. tey bu clair mbër mu ko am mënoo am doole. yaatu bu bëri. mën naa ko nangu waaye day ànd ak physique bu bëri. yéeg din lu bëri. kon taag ak dix personnes. waaw waaw kanam gi xees xoosu ba yi mel na lu xeesal. yaa ngi dégg euh, euh, mbër mbër mën naa taxaw yaa ngi dégg di contact ak dix personnes jël kii sox mu jeex ma jël ma seet mu jeex ma jël Boy Niang mu jeex ma jël Ama Baldé mu jeex ma jël keneen mu jeex ma jël keneen ba xam ñu bàyyi la nga dem rek récupéré dem jël soit dem jël soit dem jël soit ñu nga sampal boo ko defee quatre fois ci biir entraînement yi mën ngaa sol say bagage nga ñibbi. waaw. tour de Mongol la la ñuy wax tour de Mongol. waaw mais léegi nag da ngay gis mbër boo xam ni. Mhm. comme li nga wax ni euh, Faram da gis mbër boo xam ni day am xaalis dem dawal 4 x xel ma dal kilim ba sedd guy kilim ba sedd guy yaa ngi dégg du entraîné ñu ne ko sa combat ñaata weer a ci des mu ne cinq mois li cinq mois ya ma ngay bàyyi xaar trois mois yow mu commencé entraîné diggante boobu mënoo fee am doole bu tax ñuy wax mën ngaa am doole mais du doon doole bu suudee mm-hmm. soo bëggee am doole bu suudee préparation combat cinq mois ñun dey Hmm. moom mii sax lu mu gàtt gàtt am na lu mu jot a fekk suñ catu carrière. Ah, am lu bari sax lu mu ci fekkee. moom ca ca ca ca catu yu métti ya da koo fa da am lu mu fekkee. waaw ñun li ñu xamoon mu ngi nii déggoo la ngi ni taxaw. dañ daan wàcc Malika. bu ñu nee cëpp Malika. daw dugg biir eaux et forêt bi. ñëw ca ngejj ga. waaw ngejj ga fa la ñu yéeg. 32 tours wala 40 tours. daw futti dugg biir eaux et forêt bi génn flawo ya déglu ma Malika laa la wax de nga fëtt daw wuti xabru Limaamu Laay Malika xabru Limaamu Laay waaw te dafa am lu ñu xewaloon mooy ku nekk da ngaa dañu xewaloon ku ci nekk da nga yor daalu Pythagoras yu militaire yi dañ ko doon jël ran jës ran jës moom lañu yoroon ñun ñëpp boo ñu gisee ni ñu bu dëkk bi ñëw Papa Ngom Maseer eh, kii eh, Sadio Ndiaye eh, booba kii tu tàgg la Sadio Ndiaye mo taay seen nga ca woon Pape Cissé Baboy ñun ñëpp ñu nekk en group di daw wuti xabru limaamu laay boo ñu gisee ñu ñoom boo mooy boo doonee ragal da ngay daw ndax sili bi neen la ñu desee oto ba taxaw le jël nañu yëre yëpp jóor ko ci oto ba oto ba départ na wuti euh, kii coca cola ba ca kii waaw di ñu fa xaar ci seen géejawaay ñuy footing wuti foofu fa lañu bu ñu ñëwee ba foofu nag futteeku mhm. la commencé contact di contact di contact ba huit heures bu ñu ñibbi duñu wootu de dañuy fëtt rek génn HLM Guédiawaye bi di ñukki ñukki romb va ravee di ñukki ñukki génn Canada ba dugg biir Pikine ñu tas ku ne ñibbi. mais mais mais foofu nga dugg am na solo trop mais dañoo gis ne mbër yi léegi ñu ci mënti jàpp ngeen di action bareetul léegi dañuy jàpp di déglu. waaw li ko xaaral xale yi xale yi dañoo mënatut a bëre ndax làmb gisatuñ ci xar jëppet xat te comme jàllawle nga xale boo xam ne day jàpp ñaari loxo ci ngemb wala mu jàpp benn loxo ci ngemb te du xam nu muy def. xale dañoo jàngatul bëri wala lan la lan la xamal ko waral mm-hmm. xamal boo ñëw moo taxaw ci biir entraînement. mu nekk sox entraîné ñu def contact boo xam ne si contact bi awul yoon dañu doon bàyyi leen ñu bàyyi. Mhm. ñu ne neen nii nga ne nii ñun la kii defal lii ñu def lii ñun la lii moo koy eggalee. benn action waaw benn action nag benn action benn action boo ko defee sept boo ko defee sept cent fois mais maanaam ñun la songukat la ramassement des jambes. dëgg la ñu ni comme mosaan jàpp sa ngemb doo bëre. dootoo bëre ci la lay daan ay ñoom Aliou Diouf yooyu ci la lay ci la lay daan bu mosaan taxaw bu arbitre bu arbitre fara ci biir boppam bu nëb bu yëngoo rek jël na la. kenn du ko gis. parce que daawul sëgg. non bu la bu la jëlee kenn du la gis. ci la daan ay ñoom Moussa Ba ci la daan ay ñoom Moussa Ba Gueye yëpp ci la la daan. yaa ngi dégg. xam nga moo neex. kon nga bu déwénee ba tànk nekk sa tànk nekk. benn écrit boo fa amoon benn mbooloo ñëpp ci la ñu nekkoon. daan koo xam mu ne mu ne mu ne. ma ne yow Abdoulaye la kii. mu ne. dañ na pas mën rappel man ba sa tànk nekk ci mu rappel la jàll. ma ne daan daan koo xam lu mu mën a. Hmm. song koy def. song ko léegi nag léegi nag façon bëri yi am xam noo mën tapal tapal la rek. mais mais mais mais mais Boña Boña dama dama wàcc Thiès dama mës a dem Thiès. Ah, bi ma demee Thiès. par <laughs> euh, exemple émission bu mu doon tourné benn paa woo ma. waaw. yaag sa yaag sama père. waaw mu nettali ma ci yéen ay histoire yu doy waar ci Thiès. ci lan ci lamb ci lamb combat <laughs> yi absolu ngeen bëri Thiès ndax nee na demoon na demoon na ba diggante Thiès Tivaouane ko yooyu chaque dimanche dernier fa bëri lu waral loolu waaw man kees bëri naa fa papay bëri naa fa kees bëri nañu kees ah. waaw bëri nañu Madina Fall booy eh, bi dëkk Kayar jam teeri jam teeri ba dégol mi bëri naa boppam daan ko foofu ci biir ka alamaane mhm. ñun dañ doon roti say dem xaalis amul woon waaw mais amul bi xaalis amul woon mais dañ doon bëri di dem boo jëlee fii combat deux cent mille jël fi combat trois cent mille jël fi combat quatre cent mille loolu lañ daan topp di dem boo bëree tey tey ba mbay suba tey ba njaay mu ne bi muy daan jugaje wuyul fi fadam jugaje wuyul fi bi ngay bëree ngelaw nga tëjee maa leen yóbbu mais yóbbu naa leen mbuur yóbbu naa leen mbuur ba keroog ba ñu yegtee mbuur ca Baska. dañoo ñëw ñu ma ne Mansour du takk Dégol du takk Assane Balde takk Paala mii mooy takk ak Galas ñu ne mukk Mansour waxal ak seen grand bii ñun duñu ñëw jë mool yëpp jóge géej ñu ñu naan ñu naan Dégol ak Mansour duñu takk man leen duñu takk ñu mere ma Paala jaar fële. galas jaar fële ñuy ratissé kii day yenu yaa ngi dégg kii saa yoo téye tànkam dalay daan as mbaay ni tëll ma boole ko déglu mu daan ambrage ni tëll ma boole ko déglu ñu match nii as mbaay ambrage baay pokola mooy baay pokola ñu bëri ñu ngi naan bandela sana yaayam moo mooy mama am mbaay mooy papa eh. ah, moo nekkoon eh. moo nekkoon nga xamante ni mooy Pakola Mbaye eh. mooy papa Pakola mooy Abdoulaye mais bu loolu passé dafa am lu ma bëgg a laaj une question dama dégg ñu ne yéen bi ngeen nekkee Thiès Cheikh Modou Kara dafa daan ànd ak yéen ma gis tey jii ku mel ni Boy Niang am combat mu ñaanal ko ñu wax seen diggante yéen te Cheikh Modou Kara ku ko xam xam ko fi li mu ne ma leen laaj seen digganteeg ñaar. mais moo Modou Kara li may wax du ma ko mos a wax boo doon téye suñ ci mikaay bappa. waaw bu ñu masaan toog ba guddi jot kër boo ñaar dëgg la ngi nii toog du ma bàyyi ma fenn. ñu toogee ba minuit dafa mën soor ma la wax mu ne ban mbappat laax moo gën a neex booba si talamin day tëgg jaxaaw di tëgg ngent di tëgg euh, euh, mat di faat di tëgg te foo ci dem day raasé da da ba ban mbappat a neex ñu ne ko sëñ bi ñu yam mbappatu ngent bii moo daax parce que ba ñu ngent dafa porté woon da ngay génn place de France ndox wuti police ba jéggi passage adio ba hmm. jàkkaarloo ngent hmm. nga xool bopp nit ñi poussière bi jóg nga xool lépp day doomu aadama ba pare fees ba raase ay ñoom ndogay jëre ñoo ko doon woy yooyu mbapat nga xam ne da nga fay gis champion bu ne da ngay jékki ñu la waa yaa ngi ni gaare seen super hmm. waa diw ci ay renfort ñun la séeréer sang ni gar seen super. ah El Hadj El Hadj mooy ah alaaji bi ñëw na. yëgale bi rek loolu am na solo. non xaaral xaaral loolu am na solo. mais mais dama ko bëgg a dugal ci. weer mois suñu jiw seen génération bu ñu mosaan def ko yëpp ak saa yi amoon ci biir làmb. fu mu nekkoon neex na de. xaaral kii xaaral kii bi yow ñu dalal alaaji bi. mu ne ma ne xaaral di dalal alaaji bi nga yeggale ci super yi nga yeggale ci super yi bu seen ilimaan toogee ñoom dañuy seet dañuy déglu rek dañuy déglu waaw kii tëgg naa ko mbapat ama seen kii tëgg naa ko mbapat duy sa ak bu daje ay booy yoo xam ne kenn dina laal te booy ba booy séeréer ba te doon takk cëw yi te njooloon boo ko doon xool bu ko damay defoon ne sa grand frère si tëdd la. loolu la mun si lan def si lan def petaaw yi nii. ak booy uñaa. uñaa uñaa lu mu laal day sotti. barke yooyu bi. lu mu laal baaxul. man uñaa lu mu laal baaxul day ah, baax. donc booy boobu dama ko xoosoon mooy yëpp sax dama ne kii la ma ko téye doon mbër. mais ñoo dugal ma ci biir gars yi. sa waay ma ñëw ma téye ko ni ko lii laa fay doon bu ñu def ak jëm nañu kii dafa yoroon staff boppam la yoroon ay supporters spécial la yoroon yoo xam ne si dañuy dawal seen oto fan la ëmb seen jëm ñu ne bara sàngam ñu gaar seen oto ci boppam taxaw di ko xaar. mu mhm. ñu dar ko. mu mbàkku dugg ci mbappat bi jeexal mbappat bi ñu taalaa seen oto wuti beneen mbappat ci guddi gi waaw waaw te loolu ci ñun la ko jëlee ñun dañ daan bëre dëgg la ñu toog dañ daan bëre mbappatu boy bambara te boobu mbappatu booy bambara ku cuune doo fa dem. Hmm? déedéet mbappatu booy bambara. te digg tëri bay mbaar yi ñaari mbappatu ngi nii kenn doo ku mënul bëri doo fa taxaw mooy mbappatu booy bambara. Hmm. garage Casamance bu duggoon mbéy ndax ndax mbam bu dugal mbéy gi faako fa bu doon champion garage Casamance euh, kii mbamatu bay bambara moo doon last cour bi foofu la daanaan yëpp doon dee barki yi mu nekkoon dibiteri bay mbari mbamatu bay bambara ñaari tëli loolu loolu ko am ci làmb xam nga la ma métti nag la métti li ma métti mooy lan moo tax mbapat jeex te loolu lépp ci ñun la te léegi mbapat jeex na séeréer si ëpp nañu bëri fi ñëwal wuyu kii mënoo blanc ba pare temps yii ba pare mbëri am doole yu coriace bi la ku ci nekk rek mën a bëri grand combat. mais man Eumeu Sène dama léegi mbapat dafa oyof. mais dama gis ne Eumeu Sène man bi ma lay si daan mbapat. boobu face grand bi mu jëlee mbapat face. mënoon na fi ñu bàyyi gars yi léegi Eumeu Sène njuug lay fekk lu waral loolu Eumeu Sène. non non yéegal na gars yi. <laughs> maanaam bu jëlee sama séeréer bàyyi waaw mais kii su bëree mbapat su njuugee. waaw mais war na njuug. mais Fass bu njëkk ba dëgg ran toj. war nañu mais dina am bés nag boo xam ne. waaw loolu la gis ci dernier carrière am. waaw dina am bis mu takk dalaa. Ah. yaa ngi dégg. mu takk ga dalaa Casamance man li may wax dama la xam ne. sama pool la de yaa ngi dégg. sama pool sax topp ko. gars yi dagg caro garab yi. te ñun ñëpp dar ko mu dugg si biir làmb ji avec Joola. moom la loolu. te di yàgg daal prochain combat incha allah.

Eumeu Sène looy jaaxal. man ba may dem Mbapat. fekk na ma dégg daal ci écurie bi ma nekk. fekk na ay ndaanaan ñoo ma dar ba ma ñor xom ba may génn pour dem bëri Mbapat mbër mënu maa jaaxal. waaw parce que su may père defar nañ ma moom normal loolu laa tout booy ñaar ak ñoom ama loolu laa leen ëppee sens. waaw sens bu ëpp waaw waaw bokk nañ Mbapat ma moom. père bi dañ taxaw may guddi di dóor suuf. père Moussa Diop tamit xam nga sens boobu laa am. mais dañu ay ndaanaan rek ma dar mais dañu gisul nga nekk benn poids bu xam nii ci sa carrière musuma gis ku la sut daan la. man loolu moom bi ñëw na. ñëw waaw mais fu ma jàngee bëri la. lu tax loolu. parce que ah, façon taay bu nekk mu ngi aussi. Ah. waaw façon taay bu nekk. ba pare damaa dem bëri ñoom ci ñàkk am doole te tollu ma ci moment moo war amee doole. waaw ñu may noggatu di ma defar di ma préparé moo tax poids lu mu ma jaar toog si ñoom ci laa jàngal <laughs> ayca loolu baa ngi yëgalee gars yi. <laughs> mais